jigéen tam di same thing anything lu ñu bëgg a taxawal jigéen war a jiitu leen di wax ne ah jigéen xelam matut so na toppal si ginnaaw góor yi na na góor yi jiitu jigéen nekk seen ginnaaw so loolu la fi yàgga waaye comme yàlla dimbale nañu comme am na benn candidat boo xam ne taxaw na ba ñëpp gis nañ ne nu mu fa demee nii wiin na so laa dafa tax lii ñu bëri ñoo xam ne wax ne na magi jiitu ne ginnaaw fàtte loolu noonu léegi gis ne xale yi ak jigéen yi ne war a jiital léegi bàyyi magi si ginnaaw